Comment écouter les radios sénégalaises Ok, da ngay dem sur sunu radio tv.com ok vous cliquez cliquer après nga bës télécharger bouton télécharger vous pouvez la télécharger sunu radio tv vous cliquer puis vous pouvez le sur sunu radio tv mais enregistrer ko après nga bës donc soo ko setupé ba pare soo ko installé ba pare euh, da nga gis mu tegal ak ci benn icône bu nekk en version 12 ñu def suñu rajo TV soo si mu génne la programme bi donc bi programme bu baax a baax la boo xam ne si mën a déglu rajo yi nga si mën a seetaan télé yi nga si mën a tamit ay vidéo yi mu jigéen comme vidéo clip yi mu jigéen yi en même temps da nga si mën a seetaan ay sketch théâtre comme Maya a Diarra si mën a seetaan gratuitement et si mën di attaque ngay génn ak fii yóbbu yeneen page donc mi ngi nii nga si connecté wu si Facebook tamit gratuitement da ngay ñëw bind passe et comme ça di nga a dem si Facebook bi sunu rajo TV moo ngi nii and rajo yaa ngi vidéo yaa internet bi moo donc bu dee yi da cliquer Euh, mu ñëw comme par exemple Parafina radio X mu comme ça euh, léegi téléchargement bi tamit day dépendre si sa connexion internet bu fekkee connexion bi dafa gaaw bu gën a gaaw bu fekkee dafa yéex day xaw a gën donc stop bu dee internet bi tamit chose donc euh, seneweb point com nga cliquer chargé la page seneweb en même temps tamit da ngeen mën a connecté wu seen site donc chez le citoyen directement ici voilà très pratique ndaxte en même temps benn liste boo xam ne dañ def site site actualité yi Sénégal yëpp donc si cliqué rek day ñëw exemple leeral point en même temps mën a di naviguer fii si internet bi di en même di déglu sa rajo bu la neex comme ça sans autant que ngay fay rajo wala wala wala wala yu mel noonu donc clip bi tamit mi ngi nii comme par exemple clip mbalax

sinon tamit mën nga dem comédie ainsi de suite donc bu fekkee da nga nekk si internet bi moom it comme li ma la waxoon mau rek donc fii mooy site yi nga xam ne mooy site yi nekk Sénégal yi nga xam ne si mën a gis information yëpp boo si bëggee dugg da ngay def clic après nga xaar tuuti mu chargé la page bi si interface bi mu noonu léegi bu da nga nekk ci bëgg changer radio mën nga ñëw directement dem radio bu la donc fii chaque fois boo si bësee rek moom moo lay yóbbu si rajo ak télé yi mooy ci biir suñu rajo TV ci kaw bi mën nga ñëwaat fii directement sans autant teg si bar bi si barre d'étage bi si suuf am na benn logo bu vert jaune rouge fa nekk da ngay wër droite si rajo génne la liste rajo yi boo demee si télé boo di génne la rajo euh, liste télé yi soo bësee stop nga stopel la ko fii di am tamit tur bi nga xam ne tur rajo wala télé bi ngay déglu ak lan moo nekkaat ni ko léegi donc loolu moo nekkoon résumé wu si nan la ñuy dégloo yi ak télé yi ci internet donc boo ko bëggee def da ngay dem www.sunuradiotv.com après nga ko ci télécharger boo téléchargé logiciel ba pare nga installer ko boko installer après nga cliquer ci lu ko version rouge bi nga xam ne day nekk sa bureau comme ça di nga mën a utiliser programme ok merci